asalaamaaleykum mbokku jullit yi ku si nekk ñoo ngi leen di nuyu seen tur si seen sant waa Touba Argentine ak waa Big D in the house fas yéene nag laaj suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ne ñu xool nan lañ dundee màggal gi topp ma Gambien ñu xool laaj leen ba xam màggal gi tey nan lañ ko dundee. waa asalaamaaleykum soxna si na ngeen def. si yow noo bi naka la. man Ndeye Diagne. ah Ndeye Diagne. foo dëkk si Dakar Ndeye Diagne. laa dëkk Unité ah, waa màggal gi tey nag tey noo ko dundee. waa ñu sant yàlla julliwaat ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed santaat Serigne Touba bu baax a baax kontaan si màggal gi lool macha allah di ñaan yàlla ñu fete ka at yu bëree bëri bëri macha allah màggal gi neex na lool macha allah waaw ñuy santaat yàlla daal xol yi dafa fees bu mënuñoo wax ne bésub Serigne Touba moom at bu nekk day yokk ca kaw ca kanam ci rek ci lu baax. waaw soxna si jërëjëf waa léegi sa mbokk yi nga xamante ne ñoom ñi ngi Sénégal te instant bi moom gis nga diaspora à Sénégal si diaspora bi ñëpp léegi yow kan ngay nuyu. waaw di mu di nuyu ñëpp du ma lim su ma limee jóg maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp maa ngi leen di nuyu kontaan si yéen trop di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam te yàlla def yoonu jàmm ak salaam ñu dem màggal ñibbi waa si jàmm delluwaa si jàmm ci barke Cheikhul Khadim ñu kontaan si ñëpp di daal macha allah. <laughs> waa Gambien nañ dem xoolaat suñu yeneen mbokku jigéen yi ñëpp a fi daal macha allah xale sañ sañse nañ def nañ ba mu baax macha allah waa Maam Penda. waaw ma def maa ngi nii de. waaye ah màggal gi moom macha allah fekkee woon nañ ko. nañ ko. ren ren macha allah tey nag noo dundee màggal gi. màggal gi xanaa kontaan rek. am contentement bu rëy rëy ci màggal gi ndax fekke woon nañ ko daaw fekk waa sëñ Touba moom dafa dekk géej Mbambulaan wax dëgg yàlla fu waay nekk rek yaa ngi koy màggal yaa ngi koy préparé macha allah dara jeexu fi démb ba tey ñu ngi togg di yàq macha allah daal kontaan nañ ba mënuñoo wax yal nañu ko yàlla buur bu baax bi fayal Mbàkke Bàlla ay sa buri waaw léegi yow Sénégal macha allah ña fa nekk xam nga ne dinañ la seetaan. léegi yow kan nga fay nuyu waa Sénégal buñ la gisee. waa Sénégal nag maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu sama borom kër macha allah moom ma nga Sénégal ren fa la ko màggale waa di ko ñaanal rek lu mu def ci màggal gi ren rek euh, mu gën a yokk daal ak mboolem jullit bu fa nekk di nuyu sama mbokk yi nekk fépp macha allah ren moom sama xel yëpp mi ngi Sénégal ndax euh, comme maa ngi dëkk Touba xam nga màggal gi fekk ma fii macha allah sama xel sama xalaat yëpp mi ngi Touba waaye comme ñu ngi koy màggal fii macha allah daal sant yàlla rek alhamdulilah. waa Gambie comme ni ma la ko waxee rek xale yu jigéen yaa ngi nii macha allah def nañ seeni i jasneer yu baax def seeni i brodé def seen i VIP xale yu Argentine daal Gambien ñu dara def seen cheveux yu baax waa ngoone waa màggal gi noo ko ah gi moom neex na neex na bari na na lépp doy na wóor na yàlla damay ñaan daal ñu fekk ko at yu baree baree baree. waa tey gi tey noo ko dundee jaara bu so. na sëñ Touba kontaan ci bisu Cheikh Ibra bi rek sëriñ Touba bi rek dëgg yàlla moom lépp doy na lekk gi bari na jàmm ji bari na berne yi daal moom macha allah sëriñ Touba daal moom yaa nañ ko suñu borom fayal rek ca kaw ca kanam rek bàkki sëriñ Touba sant nañ bu wéer a wéer a wéer wax dëgg yàlla maal gi moom neex na lool lool lool sax yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bare bare bare bare bare ci bàkki Seydina Muhammad waa baax na merci. waa léegi nag loolu lañ leen indi lool suñu mbokk yi vraiment indil nañ leen xale jigéen yi seen sañ-sañ yu baax Argentine seen màggal macha allah yal nañu yàlla may ñu fekkee koy at at yu bëree bëri si barki Serigne Touba bu déwénee nag mu fekkuñu foofu sa borom jumaa ji merci. mbokk yi seetaan mu mel ni kon fi ne màggal gi mën naa wax ni ñu ngi waajaat déwén fii ci Argentine yaakaar naa fi mu ne nii heure bi nga xam ne moom la ñu joxe woon ngir terminer action nañ ci. ñu bëgg laaj nag mbokk sénégalais yi naka la ñu dundee bis bi nga xam ne mooy édition 2017 te wax dëgg yàlla it ñu séntu ci yokkute bu baax a baax tur bi naka la sëñ bi ak ak fan nga dëkk Sénégal. waaw man de Xaadim Gueye lañ may wax. Xaadim Gueye xanaa war nga a jàng am nga mbokk mën a jàng de. Xaadim Gueye <laughs> man maa jàng kay waaw mën naa ko moom mais maa daal maa xasaayit ma dégg. dañuy dañuy sëñ Tuubaa ba pare rek bu ñu santee sëñ Tuubaa ba pare soo ko mën a jàng waaw booy booy wii caméraman bi sama rakk la waaw. sama rakk la ba xam na bu baax léegi boo waaw boo waaye moom rek xam na bu baax. màggal gi noo ko gisee ku baax. màggal gi moom macha allah sant sëñ Touba wër waaw ndax sëriñ Touba moom moo ñu may indépendance totale kon bisam bii moom bu ñëwee moom duñ ci def lu dul kontaan rek bis di ko sant chaque jour di ko maanaam daal xol xol na daal. baax sëñ Xaadim Gueye ah. waaw waaw eh, ba tey ñu benn mbokk sëñ bi wax da yàlla. ñu ngi lay nuyu te di lay jaar baax a baax mu mel ni kon fi ne toll nañu foo xam ni màggal gi mën naa wax ne heure bi nga xam ne moom la ñu joxe woon àgg na pour ñu delluwaat ci kër yi fi nga yendu defe naa nu bëgg la laaj naka nga gisa màggal gi waaw màggal gi moom fa tabaarakallaahu ah waaw moom daal teew nañu naa tur bi naka la ba pare Cheikh Ahmad Tidiane Dibo ñu bokk ñu bokk ci waa kër maam Seydi El Hadji Malick fa tabaarakallaahu ñëwoon ànd ak waa kër ma Ahmad Bamba ci bis bi ndax yàgg nañu ànd ak ñun muy rafet kon bu ñu ànd ak ñoom rafet rek fa tabaarakallaahu moo tax ñu ànd lépp rafet tabaarakallaahu ñu ñëw ànd ak ñoom ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko léegi ci alhamdulilahi rabbil alamina ndax Mbàkke ak Musoobe dañoo séq loo nga xamante ni mënuñu ko séddoo waaye li Mbàkke Musoobe séq ak waa kër Seydil Haaji Maalik nag ñoom rek ko séq ak ñoom kon ñun bu ñu rafetalee mu rafet na bu ñu ñaawalee rafet na ba pare kon nañu rafet rek te mu rafet jërëjëf sëñ Gora ñu ngi lay gërëm yaa ngi feegoo ak kenn sëñ bi la waaw ñu ngi baax sama tur maa ngi tudd Cheikh Mbacke Gueye maa ngi tudd Cheikh Mbacke Gueye man nga dëkk ci gi noo ko gisee ren waaw maa ngi gi moom bég nañ trop bëgg leen trop tax màggal gi mooy màggal ak Serigne Touba te Serigne Touba moo waxoon ne bis bii képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bii ñëwatee fu mu la fekk nag ma ci sant la yàlla ñu nag suñu borom dafa dogal ñu nekk Argentine mais ñu ngi sant yàlla bu baax ci sant gi di ñaan mu yokk tey ku gis lii rek xam ne Serigne tubaa ay mbirum amul tànk ginnaaw tànk kenam rek la am ñu ngi sant bu baax a baax bég na lool di ñaan mbokki taalibe yëpp mu teewee ko déwén te ku ñëw suñu borom dogal nga yokk lool ba yëg ko ci barke borom Daaru Xudoos bég na lool yéen ñi suñu xool sedd na ci yéen parce que taxawaay bi am na solo liggéey bi rafet na ngeen ko taxawoo rafet na lool ñu ngi siyaare mbokki taalibe bi yëpp bég nañ suñu xool sedd na di ñaan ci kàttanu yàlla unité bi doole Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yàlla na ñëpp yokk barke Seexul Xaadim di ñaanal suñu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp yàlla dimbalu ñu am ay xéwal yu baree baree baree bari ba dem ba am suñu kërug bokk di ko fa màggalee ci barki Serigne Touba suñu xel sedd na lool barki Serigne Touba jëf ju mag na lool jërëjëf. jërëjëf mu mel yaa ngi ak beneen mbokk boo xam ni mi ngi sol benn jaxasu baas faal sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax. waaw ñu lay fay sëñ ñu xam tur naka la ak euh, fan nga dëkk ci Sénégal màggal gii nga xam ne moom nga dund ren fii 2017 naka nga ko gisee. waaw man la Abdourahmane Thiam dëkk ba Sénégal Kees dëkk bu ñuy wax Kees kaay benn dëkk ñaari gaal waaw di sant yàlla bu baax baax julli si yeneen bi sant sang sang sang yi di sant Serigne Touba gi moom maanaam comme nii rek comme nii rek lay mën a demee rek bisub sëñ Tuubaa moom bisub sant li ma yàlla la kon ñi ngi sant sëñ Tuubaa bu baax ko ñaan suñu borom mi nga xamante ne moo yor lépp ci bàkki Seydina Muhammad ñu yàggootee ay ni ngi si déwén déwén ay déwén déwén si bàkki si bàkki Seex Xadim waaw sant yàlla bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a topp programme yëpp waaw kenn amul seen fay yàlla na Sëriñ Tuubaa fay si bàkki Seex Xadim barke borom si màggal bi sant nañu yàlla bu baax baax sant nañu bu baax a baax alhamdulilah jaa ngeen jëf ñu ngi bëgg baax kon xam dem ci biir xool mbokk naa fi ne ngi ci ñi nga euh, benn mbokk boo xam ni sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la it bu baax a baax sàkkoo xam sa tur naka la ak it fan nga dëkk ci réew bu Sénégal ñaata at nga def fii ci Argentine màggale fi màggal gi ren naka nga ko seetloo yokk na wala. asalaamaaleykum euh, waa Argentine mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant te di leen xamal ne ñun amuñu bés amuñu lu dul bésu sëñ Touba bi waaw bés bii rek lañ am pour féete ko fii nii Argentine. saa su ñëwee nii lay demee ci kaw ci kanam yokku ndam rek yàlla xam na ko man nag daanaka wax dama cee mënul bari man maa nga dëkk ba kër gu mag njaareem waaw foofu moom ku nekk xam na nam fay demee daanaka mun naa ne fa la màggal ko commencé jëm Touba waaw daanaka mun naa ne lépp nga fa donc kon fii moom daanaka dañ koy mottali fii ci Argentine rek waaye mbir ma moom moo nga Sénégal waaw doole sant sëñ Touba nag bu wër doo xam ne. maanaam bés bii moom màgg na màgg na màgg màgg ga nga xamante ne nii amuñu sax wax dëgg fa yàlla xamuñu sax fu mu toll waaw vraiment xol yi fees na benn day doy na wax dëgg fa yàlla lépp mat na waaw ñoo ngi doole doole sant daal sëñ bi bu wër a wër a wër. sa tur tur bi nga fàttali na ko. waaw man nag maa ngi tudd Pathé fay Pathé Faye laa tudd maa ngi fii ci Touba Argentine maa ngi fii Argentine waaw gars yi bëgg nañ vraiment kontaan nañu wax ji nag moom moo des. solo Pathé ñu ngi koy gërëm moom njaareem la dëkk xam ngeen njaareem nag yaakaar naa bu baax a baax nga am kon dañu dugg ci biir sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo baax ca ziar la ma gis la wax de yàlla nga sañ lu am solo ñëw ci màggalu Seexul Xadim gi édition 2017 ñu bëgg a xam tey ban yëg-yëg nga ci am ak bu fekkee ne yàgg nga ci màggal ndax gu ren gi ak yi jàll waaw ñu ngi sant Serigne Touba bu wér a wér ndax màggal moom di ko fekkee rek sant la bu baax a baax comme Sëñ Tuubaa nag moom dafa jël màggal maanaam nii nañ ko sant santale kon maanaam lépp lu ñuy def rek maanaam bu màggal jotee rek war nañ koo bàyyi ñoom màggal si waa lii nag du dara lu dul rek maanaam ñëw rek jàppale Sëriñ Tuubaa ci bis bi rek ñu ngi sant daal bu baax a baax waaw sant nañ nag bu baax a baax gis nañ tamit liggéey bi ngay liggéey yoonu Sëriñ Tuubaa yow mii yàlla nañ surum borom fulal la maanaam lépp parce que vraiment yaa ngi ci def jéego yu am solo kon yàlla na suñu borom defar xéwal yaatoo yaatu yaat kontaan nañ Gambie bu ko defee kon ñu wéy buskaar suñu mbokk taaliba yi ba léegi sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax tur bi naka la ak fan nga euh, fan nga dëkk Sénégal. waaw man la Moussa Kama dëkk ci Bawol fu ñuy wax Touba Mbomboy di jaar ñëpp di leen wax magal gi neex na di ñaan ñu fekk ko ay déwéni déwén barke Serigne di ñaanal Touba Argentine bi ca kaw ca kanam ci lu baax barke Cheikhul Khadim di bëggee ñëpp rawatina murit yëpp nag. Ah, jërë ngeen baat bi rek mooy mbokk murit yi kenn ku nekk. am ci ngëm-ngëm waaye am ci contentement bu yaato yaatu sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la bu baax a baax xam naa ca lala la wax de yàlla ci sañse bi ni nga ñëwee ci màggal gi mën nañu wax ni macha allah ñu ngi lay dégg suñu micro nga wax ñu sa tur sa sant ak it màggal gi ren na nga ko gisee. dëgg la waaw ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant waaw man maa ngi tudd Baye Ndiakhate Seck dëkk euh, Sénégal Parcelles Assainies Cambérène di sant yàlla bu baax bi ñu may ñu teewaat màggal gi waaw di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ci xéwal yi ñu xéwale di ñaan yàlla yàlla doolil ñu ay at yu bari bari ñu koy mën di ko fekkee bu baax a baax di nuyu waa Sénégal nag di leen ñaanal wàccuwaay jàmm màggalu jàmm ak salaam dem ak jàmm ñëw ak jàmm. par rapport ak màggal yi fi euh, romb ban moo dàq. waaw wax dëgg yàlla moom man benn màggal rek laa fi passé gul mais bii moom wuute na ak yi ma fi jot a passé wax dëgg yàlla xéewal gi bëri na macha allah lekk gi doy na naan gi doy na wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax di leen sant yéen tamit yéen njiit yi di leen sant bu baax a baax tamit yéen waa télévision bi yëpp waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax si taxawaay bi macha allah. ñu gërëm ko baax kon xam naa dañu wéy xuus dox jaar ci bokk ñu ngi fekk fii benn groupe boo xam ne xam naa ni ngeen sañsee rafet na ñu nuyu leen bu baax siyaar leen sàkkoo xam ku baax tur bi naka la. man maa ngi tudd Issa ñu gën maa xam si Sa Touba. maagalu ren gi naka ko gisee ku baax. waaw maagalu ren gi de wax dëgg yàlla comme niñ ko daan dundee rek li Sëñ Tuubaa doon wax naan sama tay ju ne day gàccal sama démb ndax boo xoolee kenn ku ne am nga yokkute te wax dëgg yàlla diaspora bet yokkute am na ci bu baax a baax. ndax euh, yoonu Serigne Touba moo amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te Serigne Touba ñun moo ñu goreel bu doon Serigne Touba ay xeeti jaam la ñuy doon kenn dañu naw waaye Serigne Touba dafa dara jaal nit ku ñuul ban di ko naw ndax tubaab yi dañu naw bu du woon ak moom ay xeeti jaam lañu loolu mu naan sa nafsin bilaa dara leen sama lëpp njariñ la lu andi dëkk lor comme bisam bi da koy wane te bisam bi ñun ñëpp lu ñu am rek ci lañ ko amee kon fu waay man nekk rek wax dëgg yàlla dañuy ñaan nag ci baaxub Serigne Touba bu déwén bu déwénee yàlla nañ ko defee ci kër Serigne Touba ga nga xam ne dañ koy fanaane di ko def ñetti fan comme ni ko Sénégal di defee di wax ni lépp lu ci waay yéeneet ak lëpp lu ci waay fàggu yàlla na ko suñu borom jàppandil ci barke Serigne Touba ba nga am ko ni nga ko bëggee ñi bëgg a dem Sénégal màggal yàlla na suñu borom def de dooley poos def lu mën a jënd ay nag ak lu mën a teral gani Serigne Touba ba boo ëllëg ba ku fa ñëw rek boo ñibbee ñu xam ne yow mi Serigne Touba teral na la te fii ñu nekk Serigne Touba ndax it wax dëgg yàlla boo gisee dëkk bi li li mag ñi baax ñuy wax rek fanweeri at ci ginnaaw boo xoolee eh, diine tumuraan ko woon na fi lool waaye boo xoolee ñooñu suñ tuwaay ba ñu fi duggee ba tey wax dëgg yàlla alhamdulilah yaay booy am nañ fi tout temps am nañ fi kon ñoo ngi sant daal bu baax a baax di sant nag seen télé bi di wax ne yàlla na jëm ca kanam ci barke Serigne Touba yàlla na dajoo ngërëmul sëriñ Touba waaw yàlla na suñu borom gën a jàppale daal ci barke Seexul Xadiim jaajëf kon euh, sama caméraman ñu dem xam naa suñu benn mbokk waaw mbok yi mel ne dañ cee bëgg a sànni sëñ bi tur bi naka la. salaamaaleykum man la Alioune Ndiaye. taalibe Seex. maa ngi dëkk Diourbel. Diourbel. ñëw fii si Argentine. ñu fas yéene sant Serigne Touba. parce que Serigne Touba suñ koy sant. képp ka nga xam ne yaa ngi wax asadu an laa ilaaha illallah asadu anna Muhammadu rasulullah da war a sant Serigne tuuba parce que Serigne Touba bësam lépp lu si waay def yokk ba yëkka doon waaye doo arrière Serigne Touba nee na sama bés bii bu leen ma ko xeeble la ma liggéey amul kenn ka nga xam ne liggéey nga ko ku nangu ak ku nanguwul Serigne Touba ñun amuñu fayam képp ka nga xam ne taalibe Cheikh nga ngay murit ngay laayeen ngay ñaseen bës bi kenn xàmmeewul kan mooy murit kan mooy xaadr kan mooy laayeen kan mooy tijaan kon Serigne Touba jaral nañu lu ne kon sëriñ Touba dal nañu ko suñu borom fayal Serigne Touba ñoo kontaan si moom parce que fu mu toll suñu xol ñu ñëpp tooy na waaw lii ñuy ñaan lan nañ ko teewee na ngeen déwén ñu def Serigne Touba lépp lii que li def nii tey jii dafa tuuti si Serigne Touba su ëllëgatee Serigne Touba dañuy woo. képp kaa nga xam ne ak loo munti doon nga ñëw teewe bés bi ngir bésu sëñ Touba bi parce que berne yi ngeen fi def amul fenn berne yi ngeen def fii te ji amul fenn waaw kontaan naa bu baax a baax a baax si sëriñ Touba. waaw asalaamaaleykum di santaat bu baax rek euh, di jaajëfal euh, ñi nga xamante ne ñoo teew ci euh, bésu 18 safar bi muy bés boo xamante ne nii bés la ci mbégum képp kuy. Euh, doomu sénégalais képp kuy jullit muy ci tukkim bu mag ba nga xamante ne nii bu tubaab yi ñëwee bëgg koo noot ci biiru njabootam mu tukki woon tukki bu rëy ca li tubaab yi daan bañ démb ak barki démb moom la ñëw tey du dugal ko ci seeni réew ban ko fiy sant tey muy fii ci arsantine kon nag du duñ def euh, lu dul di ko sant euh, bu baax a baax a baax a baax sant goo xamante ne nii xam nañ fu mu commencé waaye xamuñu fan lay yem. Euh, man nag dama nekk koo xamante ne c'est la première fois ma màggale Argentine mais wax dëgg fi yàlla gis naa fi lu lu yéeme Italie laa nekkoon mais c'est la première fois ma ñu ma màggale Argentine mais gis naa fi loo xamante ne wax dëgg fi yàlla gisuma ko fenn waaw di jaajëfal ñëpp di kon am contentement bu baax a baax a baax a baax ci mbokk taalibe yëpp wax dëgg fa yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax sant nañ bu baax a baax te sëriñ bi moo waxoon ne képp ku sant rek dan lay dool dolli. kon bésub 18 safar bi jaam ñi leen ci sant lépp yar na leen ko sëñ bi defal leneen li ci des mooy ñi ñi nga xamante ne nii ay sénégalais lan te dañoo jógee Sénégal bàyyi sunu famille lu nu war mooy fii nga xamante ne nii dañ fee nekk nu xam li nu tax a jóg nekk ci parce que ñii nu nekkal wax dëgg fa yàlla man nekkuma fa woon wax naa ko ci sama biir wax Europe laa nekkoon wax dëgg fa yàlla ñii ñu laabir lan kon war nañ gën a rafetal suñu diggante ñun ak ñoom ba su nekkee mën a rafet ak ñoom ñoo ngi sant bu baax a baax. baax tur bi nga baal maaleykum salaam sëñ Kora ñu ngi lay ziar bu baax ah, di kontaan bu baax a baax a baax a baax tamit di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba parce que loolu rek mooy li war. sëñ Touba comme dene woon bësam bii bu egsee exeete lépp lu waay bàyyi lu waay yor na nga ko bàyyi lépp lu waay jàpp na ko bàyyi te ñëw santale ko boroomam kon li ñu war mooy ñu santale ko ko bu wër a wër a wër a wër barki sëñ Touba waaw rafetlu nañ nag vraiment programme bi ni mu demee fii ci Argentine xam nga gars yi ni ñu organiser ak lépp mat lépp doy yàlla na buur yàlla fay ñëpp kenn ku ci nekk li ci yaakaar ak lépp loo xamante ni fas nga ko ci bés bi yàlla na lool ko buur yàlla defal defal la ci lu kawe sa njort waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax vraiment jërë ngeen jëf. caméra jëlal ma borom weer yi quoi xam naa kii moom fan lay wuyoo boo demee sëñ bi ñu ngi lay nuyu les jar. waaw bisimilahi rahmaani rahim bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur. dama naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall waaw tey dañoo am contentement bu mag fii nii ci Argentine ndaxte 18 safar ku nekk xam na ni bu ñëwee xel yépp demul lu dul ci sëñ Bamba kon yaakaar naa ni tey jii bu fekkee ni ñëw na mu fekk ñu fii Argentine lépp luñ doon def dañ koy bàyyi. ñëw ànd kook sëñ bi màggal ko ba mu jeex tàkk ndax amuñu lu dul sëriñ Tuubaa jàmm ji ñu am yëpp moom la ndaxte sëñ bi moom rek lañu ñu am kon kontaan nañ ci lool wax dëgg yàlla di leen gërëm nag yéen waa Touba Argentine ndax seen liggéey macha allah jaar na yoon lool yéen a tax ñun étranger yi fi nekk yëpp du ñu tumb ci communi cadre communication kon j'espère que dañ leen di ñaanal Touba Argentine yàlla nañ koy dégg fa ñuy dégg Canal Plus. yàlla koy dégg fa ñuy dégg RFI ci barakati yonente bi salallaahu alayhi wa sallam ci barke xaadimu rasool may ñaanal ñëpp di leen wax yàlla na yàlla def jàmm defal ñu waxaani yal baaxi bihi suboora fi jaarati la dahi lan tabor defal ñu allah hen samaroo baay subhanahu so kanna fen wa waahi wa naxdu fi kanna fi min nii min kulli sarin wa asan sani mustamsikina bil xayaasi ahmada xayral anami muntaxano mubtada man xaalaha fi samanin amanahu lahu min al ñaan gi mooy bu baax a baax ñu ngi ak beneen mbokk boo xam ni euh, moom du ma ko laaj tur bi miin nañ ko fii ci Argentine maa lay nuyu di la ziar bu baax di la laaj sa yëg-yëg ci màggal gi. waaw sëñ maa lay fay waa li ñu woo moom dañuy sawar ci wax ci bu baax dañuy sawar ci wax ci ndax Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba moom dafa doon koo xamante ni moom kenn amuluk payam kenn dafa amuluk payam te moom daanaka mbiram moom daanaka ku ko lebal ker mu fay la guddi. mbiram dafa dafa doon loo xamante ne jëriñ ko cee xel jaar war sëñ Tuuba moom di ñaan suñu borom daal moom lépp luñ kii ci màggal gi rek moom suñu borom sukkandiku ci ci daraje Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba xéewal yu saawaan baawaan gudd fan ak wér at mu dikk rek ñu koy gën di maan waaw at mu dikk rek ñu koy gën di maan ñoo koy ñaan suñu borom jox sama micro jànkatu xasaayit euh, du ma wayal tuuti nga wayal ma rek benn bayit wala ñaari bayit xasaayit waaw ci sawar lool loolu nañ ci sawar lool rabbi bi ma yasraul asana xaat faja bi jaya beliman lillahi xaat la jaa hamdil rabbil karim min la sharika lahu wa sadriyal yawmanu ransatiyan mala muhammadun salawatullahi fi abadin alayhi fi hasbi kulli bi kala kon mi ngi noonu lañ leen fi jëlee woon àndoon ak suñu mbokk Sénégal yi doon leen laaj rek seen gis-gis seen yëg-yëg ci bis bi nga xam ni mooy édition 2017 bi te fi mu toll nii ñu toll ci cëppaandaw gi kon rek xam naa ñu leen présenté nag plateau bu Touba Argentine TV xam naa fi ne gënoon a yànj nag waaye maa bi dañu nekk ci li nga xam moom moo di di installé bagage yi ak yu demee noonu ñu gërëm suñu cameraman ak njàppoon ci liggéey bi ñoom suñu xaadim ak seen big ñoom ñëpp rek di leen sant baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah di leen ñaanal édition 2018 ñu àgg ci ak jàmm xam naa ni bu fekkee ni nga may ma ko rek benn minute koo xam ni ràññeeku na la lool wax dëgg yàlla ci liggéey bi benn minute nga may may rek waaw foofu la toll walaay ndeysaan dama ko naw gis nañu taxawaayam bu baax yëg-yëg bi tey ci màggal gi ginnaaw boo waxee tur wi euh, aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli jent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di gën a delloowaat njukkal sunu jàmbaar ga mu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ki nga xamante ni moo waral lépp tey maanaam bés bi dafa doon loo xamante ni tey barki Serigne Saayo dañ si dañ see yëg lu yéeme dañ see yëg lu yéeme yéeme lam doon wax naan sama tey gu nekk day gàcceel sama démb tey da gaa firndeel ndax maanaam boo xoolee lim doon wax naan liggéeyam bi dina daj àdduna tey lii da gaa firndeel ndax boo dee xool fii ñu nekk ci latin bi am na dëkk yoo xamante ni boo fa demee tey dañ naan la fii mooy fin du monde ñun ñëw fi tey nga xamante ni l'islam dafay tumuranke lool lool lool ñu fi dundal maanaam mouridisme ba tubaab yi ñëw mu leen yéem kon lii day findee li Serigne waa doon wax naan liggéeyam bi dina daj adduna ba tax na barki Serigne Saliou dañ ci am rek goo xamante ni maanaam di ci wax sax dañ ciy lot lool waaye na kenn du yéen waaw gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy dox ñoo ñaanal télé bi doon ay télé télé ci Argentine